Papa Thione euh, Ndiong maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay madame Moreau. voilà euh, nga nekk membre bu comité d'orientation au niveau national bu mouvement gëm sa bopp chargé de la vie politique et de la formation au niveau du département de Guédiawaye euh, déjà naka ngeen di préparer seen candidat Bougane Gueye Dany pour élection présidentielle bu 2024. waaw ñu ngi lay jaajëfal madame Moreau di la nuyu di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñuy déglu di la wax ni euh, la grande coalition gëm su bopp avec euh, le président Bougane Gueye Dany ils sont en de préparer li nga xamante ni moom mooy élection deux mille vingt quatre bi li ci njëkk mooy commencé woon nañ ko sax depuis plus d'un na mooy li nga xamante ni mooy installé des cellules ñu ngi commencé di installé ay cellules fépp fi nga xamante ni village la parce maintenant ñu ngi ci village yi nga xamante ne moom bu ñu reculé di jéem a installé les solutés te yaakaar naa li def ci village yi bëriwul parce que loolu dafay ñu permettre aussi yeneen yi nga xam obstacle yi nga xamante ni daan nañ ko jànkonteel ci élection yu passe bi ndax ñu réussir ko te mooy base de données bi ñuy am ci ci village yi nga xamante ni moom la ñuy installé des solutés bu ñu paree ci loolu programme bi aussi on est en train de former ñi nga xamante ni formation des cadres ñi nga xamante ne ay responsable lañ nekk gëm sa bopp pour ñu gën a maîtriser li nga xamante ne moom mooy programme gëm sa bopp à loolu président Bougane Gueye Dany dem ñëpp li nga ne kilifa la rek ci biir lay rencontré di rencontré les Sénégalais mais aussi di waxtaan ak Sénégalais yi gën a xam ne moom la ñuy xaar ci deux mille vingt li ñuy xaar président Bougane Gueye pour te dire que ni lépp élection yi laaj rek commencé nañ ko def que ce soit équipement lépp lu ma laaj rek mu ngi ci mu donc pour le moment c'est une question de temps et d'heure pour montrer que ni gëm sa bopp pare na pour jël euh, li nga xamante ni mooy réew mi mën ko doxal. est-ce que ragaloo leen bi yoon aussi ñu recalewaat leen ci wàllum parrainage bi est-ce yéen a ngi siy bàyyi xel. waaw man yaakaar naa ne nag euh, gëm sa bopp ak leader musul ragal parrainage mais par contre Macky Sall mooy ki nga xamante ni moo doon utiliser parrainage pour mën a bloquer benn. Euh, adversaire am boo xamante ni jàpp na ne adversaire de taille la mais quant à ñun bu dee ci base de données mooy li ma la wax lii boo demee village bu nekk ñu ne moom di nga ko fekk cellule boo xamante ni cellule bi est constituée au moins de cinquante membres gëm sa bopp fekkee eh, yooyu noonu la ku ci parrainel le président Bougane Gueye ay la grande coalition gëm sa bopp gëm ma ni dinañ am problème mu candidat am dinañ am problème mu parrainage donc pour vous dire que ni même parrainage bi bu ñu laajoon un million trois plus réussir mais le problème mooy du problème mu parrainage mooy est-ce Sall pare na pour teg système boo xamante ne système bu fiable la pour mën a permettre képp ko am parrainage yu baax yu mat bu bàyyi la jàll c'est ça notre problème mais tant que problème parrainage moom je pense que c'est une étape boo xam ne on a dépassé depuis longtemps tey ji euh, gëm sa bopp yéen ban programme euh, lan moo euh, spécial si seen programme loo xam ne amul si yeneenu programme mu candidat yi am nañu dafa nekk loo xamante ni dafa xaw a méngoo en deux mille ce qu'on appelle les assises nationales boo ñëwee aussi ci force F24 yenn points yi nga xam ni ñoom bëgg nañ ko soulever. moom la ñu def li ci gën a doon particularité mooy dañoo jël le Sénégal jël le Sénégal def ko au de notre programme lépp li nga xamante ni moom la ñuy doxal rek sénégalais bi nga ciy gis sénégalais bi nga xamante ni ci mbedd mi la nekk di jaay gëstu ak sax mu ngi ci biir programme bi pour vous parler au moins du secteur primaire et du secteur secondaire li nga xamante ni moom. mais li ma économie inclusive résiliente bi nga xamante ni moom la Sénégal soxla ba nga xamante ni bu ñu nee taux de taux taux bi yokku na taux de croissance bi yokku na bu ñu wax ni ci secteur tertiaire bi la jógee mais dax ñu ko Sénégal bu nekk yëg na ni y a une amélioration de sa vie y a une amélioration de ses activités c'est ça notre programme mais priorité bi ci njëkk moom la président Bougane day wax dem démb mooy que ni réforme institutionnelle bi nga xamante ni moom la ñu war a def parce que ñun ñëpp xam nañu que ni bi nga xamante ni moom la Sénégalais yi jàppanteel mooy une injustice te injustice boobu noonu dañ a fexe ba defar ko parce que li li ñuy faral di wax naan suñu am justice boo xamante ni day nekk l'ennemi de l'injustice loolu noonu ñu bëgg a fexe ko bu ñu ko paree ci loolu nag ñu jéem ñi nga xamante ni dañoo jël alalu réew mi caxat caxatee ko attenañ ko millions te loolu jaaduwul lu amul war a nekk banque milliards de milliards ñu ko juróom del ñëpp ñu indi war ko jox ko mi ñu ci Sénégal bay am ay mango balaa mango yi di di yàqu ñu defal leen ko entreprise war ñu leen serve ñu def transformation pêcheurs yi nga xamante ne joxoon nañu de pêche ba pêcheurs am ay jën ñu de pêche ba nga xam baykat bi nekk biir Kaolack boo nee ko ci kàkkat sama taatu garab maa ngi sama tool di liggéey yaakaar naa loolu mooy li nga xamante ni moom moo gën a fës ci programme bi ak bi nga xamante ni dina permettre le bassin arachidier mën na réussir seen mbay yaakaar naa loolu bokk na ci programme bi nga xam lu nga xam ne am na doole ci programme bu ñu paree si yooyu nag parce que y' a quatorze points te point bu nekk quatorze axes yooyu noonu bu nekk dafa am des sous points ci biir on paraissait plus d'une heure de temps di ci développer premier acte bi ñuy posé incha allahu rabi bu jëlee réew mi mooy réforme institutionnelle def référendum boo xamante ni na def réforme yoo xamante ni après quinze ans mënu benn président bu ñëwaat mën a changer ces réformes là pour dire que ni on est prêt pour soutenir les Sénégalais on est là pour répondre aux attentes des Sénégalais donc pour vous dire que le président Bougane Gueye Dany a le meilleur programme Mhm. Euh, léegi euh, Papa Thione euh, ñu wax tuuti ci Ousmane Sonko moom nag candidature am jaral na ko réew mi tàkk nee na bu candidature am jàllul réew mi dana tàkk façon boo xam ne mosu fee am léegi yow naka nga xalaatee la fet ko moom daal candidature moo ko gënal réew mi nekk ci jàmm. ñun waa gëm sa bopp lañu gëm gëm mooy que Sénégal pour mu am jàmm. pour réew mi bañ a tàkk pour kaawa bañ a installé wu fii lépp mu ngi ci loxo benn nit mooy le président Macky Sall Macky Sall moo war a fexe ba képp ki nga xamante ni da nga bëgg doon candidat ci élection deux mille vingt quatre yi mu bàyyi la nga doon candidat te mu bañ a manipuler la justice pour jël ki nga xamante ni jàpp na ak GFR de taille la comme ni président bi de taille mooy ñaari leader yi nga xamante ni tey jii ñu tiital Macky mu jéem leen a loolu bu ko defee lu ci am il sera le seul responsable donc pour vous dire que ni président Macky Sall dafa war a bàyyi le président Bougane Gueye Dany comme yeneen candidat yi bëgg a doon dem ci élection yi ñu bàyyi ñu joŋante ñu bàyyi Sénégal yi choisir incha allah rabbi li ñu gëm te li ñu gëm mooy li président Bougane Gueye Dany la ñuy choisir te war nañu mën a bàyyi ñëpp bokk ci élection yi pour réew mi am jàmm dèjà renoncé na candidature am donc li ci def mooy Mhm. Euh, président Macky Sall moom nee na euh, dafa fas yéene battre campagne ci wetu candidat wu boo Bokk Yaakaar noo ko xalaatee. waaw xam nga loolu c'est son droit parce que il fait partie de et l'APR est dans Benno Bokk Yaakaar donc am na droit ñu choisir seen candidat mu ànd ak candidat bi campagne mais man li ma gëm mooy loolu balaa moo neex wala balaa moo jàll mooy mu fexe ba organiser des élections ñu ma la ko waxee sàng transparente élection yoo xamante ni du am benn problème élection yu leer naan yoo xam ne élection suba résultat yi du génn ñu koy contesté depuis ba fi Macky Sall nekkee ba tey élection bu romb ñu contesté ko li ko waral mooy que fichier électoral amul dangay dem bay defal sa parrainage sax doo jot fichier électoral bi nga xamante ni moom la ñu war a demee élection nga dem parrainage sax déposé ñu tegal la fa système bi logiciel boo xamante ni logiciel de filtre la ku leen neex la ñuy bloqué ku leen neex luñ ko bloqué bu dindee yooyu organiser des élections fexe ba coow am estabilité am ci dëkk bi te xam ne ci loxoom la nekk bu boobaa mën na ànd ak candidat mu battre campagne ndax fa lay victoire bi di gën a neexee ànd ak candidat am battre campagne opposition bi gañe ko incha allahu tous tout l'opposition derrière Bougane Gueye Dany ñu gañe ko incha allah fa lay débat bi gën a victoire bi di gën a neexee donc am na ci droit mais na organiser élection yu leer ba pare. moom tamit nee na bis bu pare mandaam fii lay toog ci réew mi wala ci Afrique loo si xalaat. waa xam nga xam nga moom it sénégalais la. quelle que soit la situation li ñu mës euh, bëgg mooy réew boo ko jiitee ba pare nga rester ci réew ma accompagner réew ma ci ay conseils ci ay orientation mais aussi boo yoree réew ñu gis ni réew mi dafa am injustice ñu gis ni on a dilapidé nos ressources gaspillé sunu xaalis avec le gouvernement jaadu na boo bëggul dem sax

que ce soit muy membre du gouvernement wala beneen responsable ci yi nga xamante ni mooy responsabilité donc mu resee ci Sénégal ba ñu xoolaat Sénégal càmbar mooy doxal Sénégal li ci yàqu li war def liggéeyam mu def ci liggéeyam mu bëgg ko ak mu bañ ko bëgg dina def Sénégal merci beaucoup euh, Papa Thione Ndiongue maa ngi lay remercier bu baax a baax merci beaucoup madame Moreau kontaan naa ci intervention bi. may fàttali di leen remercier aussi. voilà may fàttali ni membre nga bu comité d'orientation au niveau national du mouvement Gëm sa bopp chargé de la vie politique et de la formation au niveau du département de Guédiawaye noonu la. effectivement voilà merci beaucoup papa. merci beaucoup.